asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñoon waa PAMECAS Touba bu ñuy wax PAMECAS Touba PAMECAS région de Diourbel la diggante Touba Mbacké Bambey Diourbel euh, ñoo defoon délégation boo xam ne élus yi les dirigeants de PAMECAS mooy conseil d'administration bi comité de crédit bi ak conseil de surveillance bi ñoo def délégation ak directeur bi ñëw bëgg a ànd ak waa Touba ca kanam ci liggéey bi ñuy def ñun dañuy wax ne PAMECAS c'est la finance sociale xëy na lii ñuy def mu doon ak njëlbeen ci Zahir euh, at mu jot bi PAMECAS nekkee Touba ba léegi at mu jot dañuy mëne ay action sociale dañ daan def bu ñu bu ñu bu ñu liggéeyee baat mi teru bu ñu amee ay résultats dafa am lu ñu tuddee fonds sociale ñun li ñu sunu borom dimbalee mooy ñun dañoo gisoon ne ñi dëkkee Touba li nga xam ne am nañ ko ba mën cee mën a def ay action sociale daara yi la woon ñun. parce que xëy na boo demee ci biir Sénégal yeneen kees yi seen action sociale ñu ngi koy jëmale feneen sunu borom dimbale na tamit ba biñ koy njëkk a def sa daara Sëñ Abib mi bokkoon na ci daara yi ñu demoon maa ngi koy wax léegi président bi ne ko. keroog ñun bañuy bañ fay jógee dañoo xawoon am yaraange ndax lañ fa yóbbu woon moom dañu ko joxe dañoo joxe ay teraanga ba ñu gis ne lim ñu jox ëpp na liñ fi liñ fi yóbbu liñ liñ fi indi bi tamit biñ fi waxtaaneek euh, bureau bi ci wàllu partenariat ndax dañoo gis ne ñoom ñun kat ndeke li ñuy doxal ñoom ñii dañ moom la ñuy dund ñu ne kon li gën a jàppandi mooy li nga xam ne dañ ko daan defal suñu bopp nañ ànd ak waa Touba ca kanam def ko ndax umpule wuñ ne ñoom li ñuy def nit ñi am nañ ci yàqin ne egg na ci askan wi kon euh, li olof yi wax naan sotti ceeg def ci la gis nañ ne action sociale yooyu ñoom sax ñooñu ko gën a mën ah ñu ne pour tàmbali de manière symbolique euh, ñu indi comme dañoo tombe ci weeru koor booleeg événement bi xew ñu ñu pandémie bi ñu koy tuddee Covid 19 ñu ne nañu nañu dem barkeelu ci liggéey bi mu doon ak tàmbali ci ñun waaye fas nañ yéene at mu jot bu ñu amatee ay action sociale yu ñuy def dañ koy ànd ak waa Touba ca kanam mu nekk tàmbale partenariat bi te lu ñu ñoom it lu ñuy def buñ ko yëgee danañ fexe ba bokk ci parce que boole nañ suñu bopp ci Touba ca kanam. ñi ngi am mbégte mu rëy tey di yëkkati suñuy kàddu. ci ndigalul sëriñ Mourtala Mbacke mu sëriñ Abdoul Fattah di président commission sociale di daral nag fii ci siège Touba ci kanam waa PAMECAS ñu ñëwoon indi ay xéwal yoo xam ne dañ koy jàppale commission sociale ci journée sociale yi muy faral di def at mu jot ci biir weeru koor wi contexte ren bi nag xaw a am changement par rapport ak nañ ko daan defee ndax dañ daan dajale mbooloo mi ci mbaarum Daaru Xuddoos ñëpp nekk fa mu doon journée bu mag waaye nag ren ni mu demee tax na ba ñu changé niñ ko daan doxalee moo tax ñoom bi ñëwee fekk ñu fii euh, fekk nañ ci ñi leen teeru Serigne Cheikhouna Mbacké Doyoli nga xam ne moo jiite président mooy président commission discipline ak programme le président Serigne Abdoul Fattah Gueye mi ngi fi ak Serigne Moutala Mbacké moom Serigne Abdoul Fattah moom moo yore commission sociale bi loolu rek ngir won leen ne dañoo am mbégte mu rëy ndax lii ñu def nii bëri na sax ay structures yoo xam ne am nañoo ak ñoom partenariat waaye defaguñ lu toll nii kon nag ñoom buñ ko defee te dara xaatima ko day wane ne ñoom lii ñuy def nii lu wër la lu ñu gëm la te it dinañ def la tuuti ba collaboration boobu gën a ratax suñu diggante ba lépp gën a mën a jàppandi ndax ñoom ba ñu xamee ne la ñuy def mooy li Touba ci kanam di def dañu ne nañu ànd dooleel Touba ca kanam ñun ñëpp ñu jàppale askan wi kon nag ci turu commission sociale ñu ngi leen di sant bu baax ci lii ngeen indi tey di leen xamal ne incha allah fa war a jëm dana fa jëm.